So bëggee seetaan Darmanko TV da ngay dem YouTube ci barre de recherche bi nga bind Darmanko TV di nga gis Darmanko TV ak fleuram bu orange nga daal di abonné daal di cloche bi bu ko defee lépp lu Darmanko TV dugal ci chaîne YouTube bi di nga ci jot ci nu mu gën a gaawee. a'uuzu billahi mina seytaani rajiim. bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokki jullit yi mbokki taaliba yi yéen ñiy seetaan ci seen Darmanko TV ak Darmanko FM ñu di nuyu di leen ziara di jiite ci nuyoo ziara yi nag xalif général de di ko ñaan fan gu dëgg wér di nuyu bu baax ki nga xamee ni mooy mooy directeur bi muy soo Diagne waaye di ziar bu baax suñu réalisateur bi Baye Fadil Gumba la ñëwaat ak yéen seen waxtaan diine ak Oustaz Massamba Tandine su ko defee tey ñuy waxtaan yi tamxarit dañ euh, ci waxtaanee waaye waxtaan ci ngëneel ay ngëneel yoo xam ni ak euh, am na ci ak xew yoo xam ni xew na ci xam mooy at mi jullit mi ci lañ koy jàpp mooy ci lañ yi amal atum jullit ñi su ko defee bu tamxarit jotee rek day tombeek at at mu jullit mu bees ay xew-xew am ci muy ay bànneex waaye ay ay naqar bokk na ci xam ngeen ni ñaari sët yi bi sallallahu alayhi wasallam muy ak Useynu ñoom da leen faat ci asura muy fukki fan ci tamxarit muy lu doy waar ci Karbala kon muy xew-xew yoo xam ni xaw na ci yu tiis ci jullit ñi wante nekk xew-xew yoo xam ni yu métti lool am ci ay ndénkaan yoo xam ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam da ko dénkaani woon su ko defee ñi na nas koy def te sëñ Tuubaa nett lañu ko ci Masaalikul Jinaan bu ko ca yooyee te mi di wax ni sopp nañu ko ci yonent bi salaa salaam wax ni sopp nañ ko ci julli mu ni sopp nañ koo xam ni da ciy woor boog da ciy woor ndax ngëneel la ngëneel ngëneel la yu bari moo ci nekk ndax siif yi ñoom dañ daan woor bisu fukkeel ba si leen laajee lu waral loolu ñu ni euh, sunu yonent bi ci la ko euh, ci la yàlla labale woon Firxawna euh, musal Musaa su ko defee moo taxoon ñoom ñu daan ko woor kon yonent bi ni leen kon gën leen maa yey ci moom buñ ko fekkee incha allah dañ dañ damay damay boole boole woor muy taasuwa ak xansura muy bésub juróom ñi tax ba fukkeel bi yëpp ñaar yëpp dañ koy woor kon moo tax woor ci day am solo lool ci ku ko man nga def ko kon su ne woor weer yëpp moo gën euh, ginnaaw loolu da daanu ci julli ñaari rakka daan ci julli ñaari rakka euh, daan ci saraxe daan ci sangu daan ci lelli ay we daan ci sungalu yooyu yëpp daan ko def ci bis bi daan ci jàngit suratul ixlaas mooy xululaahu ahadun ba jeex ñett euh, junni yoon yooyu itam daan ci jënd yàpp togg bernde maanaam bégal njaboot gi ak dëkkandoo yi kon yi mooy yi nga xamante ni sopp nañ ko ko def bokk na ci yi nga xamante ni euh, wax naa la ko léegi nga xam ni jàng xulwa junni yoon ak euh, jënd ngay jënd yàpp di jox euh, di jox say waa kër walla say ñoñ say jegeñaale nee na loolu day day day yokk wërsëg day yokk wërsëg loolu day yokk wërsëg wante bokk na ca sangu biñ ci xam dañ ci sangu noonu day day waral day dàq ak ràgg maanaam ay day dindi ay feebar ci yow tusngal biñ ciy def nag day waral yàlla mësale ci ak ngumba euh, dañ ci mucc kon mi ngi noonu euh, ba tey wax naa la ni la xew-xew yi nga xam am na ci mooy ci la sunu moom Adama alayhi salaam ci la ko yàlla jéggalee ba nga xam ne tooñ na ba yàlla mu ne fa talaqa Adama min rabbi kalimatin fataba alayhi innahu tawwaabu nee na euh, ba mu tooñee borom bi tabaaraka xawaa yàlla musal leen nee na mu leen ma leen baale ca asura muy euh, tamxarit ca fukkeel ba. gaalu gent yàlla noox ga moom it euh, ba ko yàlla digalee mu defu gaal gaal ga daw mu dugg ca moom ña ko gëm ña ci des nee na ma ngay teere ca doj wa moom ci bisu asura di fukkeel ba nee na wax naa la ko léegi ci la yàlla defalee Muusa euh, géej ga nga xamante ni duggoon na ca ba ko fi taxaw dàq euh, yàlla xaar ko géej ga mu dugg ca moo ñu ko gëm daal di mucc euh, ni ki noonu tamit ci la yonent yàlla Isaa moom juddoo ni ki noonu ci la yàlla labalee na euh, kàccoor bon ba ak ña ko toppoon àndoon ak moom tey euh, gëmoon ko yonent yàlla Yunus it ci la ko yàlla génnee ca jën nga xam ni lekkoon na ko mi ngi ko génnee ci asura yent yàlla ibrahima euh, moom it ci la ko yàlla jéggalee euh, yent yàlla yusufa moom it ba ko doon bàyyee tàbbalee ca teen ba moom it ci aswaar lañ ko lañ ko génnee yent yàlla ibrahima moom it ci la ko yàlla génnee ca sawara nga xam ni namus tàbbal na ko ca ba yàlla di wax ni yaa naaru kuuni bardan wa salaaman ala ibrahima ci la ko yàlla mësalee kon ci la ya yàlla yëkkatee yéen yàlla Idris ak Xiisa ñoom euh, faatuwun yàlla moo yëkkati seen jëmm ñu dem ci kaw asamaan kon ñoom loolu ma nga xewee ca euh, asura ni ki noonu la yàlla jégalee yent yàlla Daawuda la nga xam ne defoon na ko euh, moom yent yàlla Daawuda kon ci la ko yàlla jégalee moom mu nga xam ni mooy doonoon waajuru yent yàlla Suleymaan niki noonu tamit ci la ñuy ci la yàlla di mm, wala ci lañuy ñuy changé kaaba ga mooy eh, koddaay la moo xam ci saahir wala ci baatin kon loolu ci lañ koy eh, changé kon xam naa rek mu ngi noonu mu nekkoon seen waxtaanu diine ak seen mbokk Oustaz Tandine ci tamxarit wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu